ok au fait euh, du Grand Yoff xaar yàlla la euh, bon si vous parlez de troupeau c'est euh, non non dama ne comme. c'est comme c'est comme waaw voilà je m'explique je uh-huh. euh, m'explique. pour éclaircir un boo gisee ma dugal Cheikh Kanté c'est parce que moom mooy moom mooy ki waral juddu sunu mouvement ñun moom moo ñu propulsé en quelque sorte vous comprenez donc man. man mi créé man mi inspiré la mouvement mag yi bu xaar yàlla man maa inspiré beneen mouvement jagleel ko beneen nom de mouvement parce que li ma ci jublu mooy dañoo jàpp ni Cheikh moom mooy Baye mag yi Sall ñi fa nekk ci mouvement boobu ñan la non doucement doucement mm. on va mm. man maa jagleel mag yi bu Cheikh maanaam mouvement ànd ak Cheikh yokk beneen mandat le nom laa jagleel Cheikh comprendre nga. Mm. c'était pour répondre à son appel loolu dama ko ko jagleel. léegi quant ñun suñu mouvement ñun mooy Macky bi mouvement action collective xaar yàlla. Mm-hmm. ñun suñu bosa ñun ñi dëkk xaar yàlla fa la juddoo soo gisee nag maye la le mouvement va au-delà de de xaar yàlla c'est parce que liñ ci dégg mooy maanaam on parle pas du quartier. vous parlez de quoi. on parle de néeg yàlla bokk wéetal yàlla. maanaam pour mbir mi ne pour mu dox. mais mouvement boo boo njëkkul amal njëriñ quartier bi balaa ngay dem feneen. c'est c'est le début en fait. waaw waaw maa ngi ñëw foofu noonu. maa ngi ñëw ñun ñun par exemple xam nga li nga wax nag dafa am solo li fi mu amee solo mooy nga ni Grand Yoff nga dëgg musuloo maa dégg fa laa yeewoo waaw fa nga yeewoo musuloo maa dégg dëgg la daa xam nga mbir yi. Euh, am na noo ciy duggee. te sa mouvement yaa ngi ko créé depuis 2015 depuis 2015 mais depuis 2015 si je puis me prononcer ainsi c' était en stand-by parce que on a frappé à toutes les portes pour que mu mën a dox am nañu lu ñu ko doxal am nañu capacité intellectuelle yu ko doxal am na nañu maanaam bagage yëpp am na pour mu dox mais xam nga on est en politique te bu ñu nekkee ci politique gars yi pour ñu broyer la pour ñu jéem laa broyer dafay yomb bon je sais pas gars yi ni ñuy xalaatee quoi. tu comprends on a tout essayé pour euh, euh def la vulgarisation de ce mouvement là mais jàllul li mu war a jàllee dafa lu bari lu des léegi lii nii boo gisee ñi yeewaat ko c'est parce que maanaam mënuñoo def lu mel noonu parce que moi ma ñun dañoo gis ni dans le monde ci àddina bi yëpp laa wax je pèse mes mots aucun mouvement qui vise autant le président Macky Sall yeneen mouvement yëpp yi fi nekk mooy mouvement ànd dooleel Macky mouvement ànd falaat Macky mouvement ànd lii Macky mouvement ànd lee Macky ñun nag ñun suñu mouvement turandoowu président Macky Sall. d'accord Pape.